mbokk yi am ne mbégte ak contentement ànd ak yéen seen émission Kouthia Show fas yéeneen jox sommaire bi nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi xam ngeen ne état bu France atte na juge yi ca boppam juge français yi mujj nañoo am ndam ci kaw juge sénégalais yi avocat yi déplacé woon dem seetaan yi atte bi nga xam ne mooy kër ba Karim Wade am ak Bourgi di li nga xam ne nag ñoom ñaar ku nekk am nga appartement ca France état français ak justice français jox na ndam ki nga xam ne mooy Karim Wade dinañ ci ànd ak juge français bi ci boppam dina ñoo indi lu tax ndam loolu daa dee gën a leer ci kanamu nit ñi waaye mbokk yi tamit dinañ dem seeti ki nga xam ne mooy góor gi Sonko Sonko bii nag ute nag nijaayu Sonko Ousmane bi nekkoon inspecteur des impôts kii mooy Sonko bi nga xam ne coow li am ca biir Mbuur te xeex bu metti am dimanche bi passé ci ñaari askan yi di benn askan soose xeex ba am ci kankurang yi Pa Sonko moo ñëw pour jéem a indi jàmm ci diggante ñaari askan yi di askanu soose ak soose Karim Wade ca Dubaï Karim Wade ca Qatar la yëgee na am na ndam moom daal na koy fete ak ay princesse yu nekk foofu ca Qatar ñooñu nag ca boppam nag def nañ ko fet bu mag ndax Karim nee na première victoire bi mu am bu amee ñaareel waa Sénégal dañ ko gis kon dem ba Qatar seeti Karim Mame Mbaye moo wax loo xam ne kenn ñeme ko wax ci gouvernement Macky sàll ndax am na ñoo xam ne yaakaar nañ bu ñu waxee dëgg Macky Sall dàq leen kii mooy jàmbaar kii mooy Mame Mbaye Niang wax na loo xam ne tey ku ko waxoon tey tamit da nga daw làqatu ci waaye moom da ko wax ba pare jaaraat ci nee na cooli cooli mooy Aliou sàll amul benn njëriñ Macky Sall na dem leeral mbir moo gën kon danañ dem seeti ki nga xam ne mooy Mame Mbaye mbokk yi xam ngeen ku nekk ci réalisation bi est que xam ngeen ku nekk ci réalisation bi est-ce que xam ngeen ku nekk ci réalisation bi Papa Samba waaw noonu la tudd lendemain moo koy leeral. las. nay leer las bëggul lëndëm nay leer. nay leer moom la tudd. nay leer moom la tudd. bilaay walaay moom la tudd. noonu lay wuyoo noonu la tudd. est-ce que xam ngeen loo xam ne xamu leen ko woon. ñaari télé yi ma jàkkaarloo. benn jëmm moo koy monté xam-xamam màcc ci loolu ingénieur vidéo la xam ngeen koo koy kan. Babacar. noonu lay wuyoo noonu lay wuyoo noonu lay wuyoo noonu la tudd noonu lañ koy woowee noonu lañ koy woowee noonu la tudd noonu la tudd waa production bu ñu amee ndaw bu ñuy yebal pour mu xool saytu lu production war a indi ci biir équipe bu Kouthia Show xam ngeen kooku ñu xam ngeen kooku nu mu tudd xam nga ku ñu yebal Papa Doudou Dia la tudd noonu lay wuyoo noonu la tudd noonu lay wuyoo noonu la tudd noonu lay wuyoo noonu la tudd est-ce que xam ngeen ne loo xamu leen te xam ngeen ko xam ngeen ko loolu nga war a xamee te xam ko xam ngeen ku yor suñu kaaraange ñun suñu sécurité ba ba ñuy génn ci télé bi kookoy kaara noonu la tudd noonu lay wuyoo noonu lay wuyoo noonu la tudd noonu la tudd noonu lay wuyoo noonu la tudd est-ce que xam nga ne sécurité kër gi ak maanaam boo bëggee xam ni télé bi doxee koy seet boo ñëwee koy laajte Père Assane waa ku Kouthia bu ñu liggéeye ba pare dafa am kuñ koy teg ci loxo mu coordonné diggante ñun ak waa régie teg leen pression mu gaaw xam ngeen koo koy kan Pape Cheikh Pape Cheikh Pape wala ñu yónni nit pour mu wutal ñu café wara ñu am gan pour ku koy jëli xam ngeen kooku kan la Fatima yonent Fatima yonent Fatima ne sabar la ñaar nit koy bokk Go Abdou Fa Gueye ak Go Fall waaw noonu noonu noonu tudd noonu noonu noonu noonu la yi nag xam ngeen ñan la caba ñanga waaw waaw waaw waaw xam ngeen maquillage yi kan moo ko yor Yaasin dama sonn dama feebar dama sonn dama feebar sama xelay metti sama tànka metti dama sonn dama feebar sama xel day teey kookoy yaasin ma ne xam ngeen ku monté lii yëpp lii yëpp bañ fi taxaw waa dee waaw waaw jaas yi Fëri Mbay doxantu fi tey jëndee parfum cent franc jaayee juróom fukk jëndee parfum téeméer jaayee ko junni Mbay Jóob Fëri Mbay dina ma neex ñu ngi koy nuyu waaye nag Mbay dikkal dikkal Mbay kaay Mbay ñëwal ñëwal Mbay géniol shampoing bu xale pour xale ak njaboot gi yëpp waaw mën nañ koo jëriñoo géniol bii moo am gu pom waaw baax na ci njaboot gi yëpp waaye am na njëriñ tamit gis nga bii actuellement salon de coiffure boo dem ak kër goo dugg moom lañuy utiliser xam lu tax nee nañu non seulement dafa am vitamine ba pare xet gu neex gi muy bàyyi sa bopp jar na 14 milliards oh. mbay mbay mbay tamit ci plateau nga nekk da koy yàq ah mbay looloo la yàq oh, parce que xet gu neex gi mi nga yaakaar ne lu ñuy lekk la ah de ci bopp la jëm boo ko defee nii xale yi yaakaar ne loolu la bàyyi mbay te la nga nekk mbay gis nga bii boo amee xale bu jigéen bu bëgg leer waaw jëndal ko bii bii mooy puissance bi puissance bi bii mooy ñuul wala waaye loo ma ne loo ñuul ñuul ñuul dar mel na kaw diir bii moo lay weexal. <laughs> benn élément fi nekk. waaw maanaam loo loo waa kay loo ñuul ba mel ne cabar mën ngaa xees ba mel ne ñanga wuy ma bii mooy royal bi. cam royal bi bii nag moom. waaw da nga koy laal rek commencé mel na reen. ci kii da ni fraise. bii nag mooy carotte bi xam nga carotte moom nga romb ñaan xoolal kii teew carotte la waaw teew carotte bu laxee rafet bu paree rafet am na lu fi jaar fan yi loo xamante ni carotte lañ ko liggéeyee waaw yow carotte rek ngay wax yow xool nga carotte bu baax ñu dem si leneen gis nga lii lii tamit diw la yii bii mooy ñetti fan waaw maanaam ñetti fan la war a ngénte war a dem xew ñetti fan nga mel nu la neex tee carotte waaw doo oqtu doo am picc doo xasanu ci te doo am xam-xam laa ilaaha illallaah ñett yi nag ko amee bu la neexee nga bañ a jël yi yëpp ñett yi eh. gaam baa ngi nii gommage baa ngi nii saabu baa ngi nii man de léegi commencé naa gomewu ah <laughs> boo gëmul foo jëm <laughs> yow kay comme ko ñemewoo sa poos sa kanam ngay ñeme mbay gis nga bii nii shampoing bii nag moom la bii moo toj dëkk bi ban moo koy raxas kër aram jàppale daal lu ma la mën a waxal ñun ay góor lañu xam nga ñun lii nii luñ ci mën a wax wax tamit jigéen ñi ñoo ko xam ñoom xam nañ ko bu baax a baax a baax waaw fan yéene am andi woon nga ko foo xamante ne waaw xaw ma mu léegi waa léegi mbay mbay machine nag moom ah taxawal bii gorofi la piqueuse piqueuse 20 U. waaw gros fil cornière. cëm surfleuse. Diop Dakar. soo bëggee jigéen dimbali jigéen dëgg. jigéen jigéen boo ko bëggee dimbali. waaw jox ko numéro kër Aram jàppale. même bu dul war bu dul couturière. waaw jox ko lu mu am jox ko machine. man nag xam nga machine. waaw dama see faral. waaw jox téyeer yi. waaw ñu mel ne ñoom Diop Dakar. waaw Pikine as nuyu naa la. waaw mais naa la mbay. Euh, ma. waaw ku bon nga boo bu ma nuyu. fii laa jël fii laa jël sama sponsor yi di jëmil France. waaw nga def si suuf xaw ma noo kom comme directeur bu bees la ñu am commercial ngay jaar si suuf di ko nax ba yàq kayit yi dematuma. moo taxit sama sponsor yi sama yoon du si nekk. Ah. sama yoon nekkul si de. sa yoon nekkul si eh man ay crédit yi ma daan jënd di si. sa yoon nekkul si ah allo. gis nga li nga ma lay wax. Ah, ah, daga xam ka laay wax da nga xam ka laay wax da nga xam ka laay mbay Diop xam nga mbay Diop lu ko fi indi. sa place lay wut. <laughs> Mbaye Diop na ñëw Mbaye Diop fëri mbay yaa tax mu ñëw moo lay remplacer te yëgoo ko Mbaye Diop ñëwal Mbaye Diop Mbaye kaay Mbaye Diop ñëwal Mbaye Diop kaay Mbaye Diop Mbaye ñëwal ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس والبرسخ المختوم والهمام الأفخم wi la ilamu la ilm nañu mbégte ak contentement bu mag euh, gërëm kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp nga xam ne nag ñu ngi ñaanal Sénégal pour ñu am jàmm yàlla defal na leen jàmm ñoom ñëpp nag jëlee ko suñu papa sëñ Sidi Makhtar Mbacké yal na yàlla guddal fanam may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ak euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram xalif bu Medina Baye ak euh, fii ci Cambérène Yoff ak fépp foo xam ne nag tarixa am na fa tey xalif jiite ko rek yal na yàlla defal jàmm may leen jàmm ju wér di ci jiital suñu bàyyi tamit ci Thierno Bachir Tall chef religieux à Louga di bàyyi Cheikh Omar Tall ambassadeur international pour la paix et la médiation religieuse lutte contre tous les conflits sociaux ñu ngi koy ziar di ziar suñu papa bopp di Thierno Sama Sama Mourabi di ko nuyu tamit alaaji Thierno Madani Muntaga Tall ziar nañ ko ak Thierno Bokar Alpha ba ca war a Kolda actuellement mu ngi ci koy ñaanal fan bu gudd ak di nuyu tamit uh, alaaji Thierno Bokar Alpha Bari nekk ca Bogol ak alaaji Thierno Hamdou Aw alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamine ak soxnam Adja Mam Bousso la grande couturière ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram fa Abdou Gueye ngay ñaanal sëñ bi nag fan bu gudd ak di ko ñaanal jàmm ak mbooleem taalibe murid boo xam ne yaa nga ca géejawaay ak ci biir Sénégal ak li ko wërëm ñu ngi ñaanal sëñ Bass Bara may ko fan bu gudd ak wér gu ngi koy ñaanal fan bu ak gu yaram xalifa sëñ Fallou ci suuf waaye raq ji sëñ Abdou Karim Mbacke tamit ziar nañ ko ziar bu wër di ko ñaanal fan bu gudd ak gudd ak wér gu yaram ak imam Tamsir Sakho wala rem Ousmane Sakho ziar nañ leen Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy ñu ngi koy ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram yàlla na ko yàlla defal jàmm ak wér-gu-yaram tamit di ziara tamit alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy ñu ngi koy ñaanal tamit fan bu gudd ak wér-gu-yaram di am mbégte contentement ci Serigne Cheikh Tidiane Diaw nekk ca Yaraax ak suñu baay bopp Serigne Mamadou Sougou Wadane ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram tamit di nuyu tamit Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnam Sadio ak Fatima ziar nañ leen bu bër di nuyu tamit cardinal Théodore Adrien Sarr bu baax a baax a baax ak nga xam ne mu nekk ci jàngu bi mboolem chrétien boo xam ne demoon nga ci pèlerinage bu euh, Rome yàlla teg la ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke Yesu Christa bi nga xam ne moom la ñu gëm ñuy am mbégte contentement ci maître Fatima Fall responsable politique nekk ci PDS yàlla ko yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax suñu bàyyi bopp nag di Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi di yeewoo ca Tiawan yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak mook suñu si yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almakhtum mbokk yi nag defe ne euh, waxtu bii nag euh, baatu Pape Cheikh laa doon dégg déggatuma ko dafa mel ne euh, ndaw si moo fa nekk kii Fatima kon nag dañuy jëlaat mbir mi jox ko ci Fatima Diallo mi nga xam ne moo yoroon póot mi ñu delloo ko Pape Cheikh Diallo mu delluwaat ci pot mi ndax tamit nañ wax dëgg munoo nekk fee nekk fii te moom comme que fee la nekk nañ ko bàyyi foofu mu nekk léegi man maa waxoon Fatima Diallo moo yor pot mi delloowaat nañu pot mi ki nga xam ne mooy Pape Cheikh bu mu nee fóot fóot mi bu fóot ko bu jëlal fóot mi te bàyyi Pape Cheikh mu jël jël coordination bi kon noonu la comme que Pape Cheikh ngi fi jàmm delluwaat na ñooy mais bu fi nekkee moo ko yor kon Fatima delluwaat sa poot pot seytaane nga jaxasekat nga ndax Pape Cheikh mu ngi woon fii di coordonné jërëjëf loolu lañ bëggoon xam merci kon Fatima Diallo ca poot ma Pape Cheikh ca liggéey ba ayca ñu dem seeti juge francais bi nga xam ne <laughs> moo jox victoire bu rëy bi ki nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade ñu dem ba France seeti Jean Toubab tax ñuy wax tubaab jaxate jaxate olof ko moom pourquoi ñu santale ko tubaab parce que dafa am lu nekk ci biir dinañ ci ñëw loolu après ñu wax ko ni amee ay géwél ak ay géer ak ay ñeeño balamanse ci ñun la fekk baax xam ngeen ne nettali rek ak jëw ci tubaab la fekk baax moo tax ñu créé journaliste kuy jàngale nettali kay xam nga ne kuy jàngale nettali bu waree nettali kenn du ko ko wax tubaab laa wax seen eh, seen seen président boobu Macky Sall dafa yónnee ay avocat fii hmm. fukki avocat ak juróom-ñaar pour ñu layel góoru Sénégal ñu nangu Karim ah. ñu wax leen lu leer nañ Karim kër gi moo ko moom moo ko jënd ci xaalisam moo ko moom moo ko leb ci banque France leb ko fay ko ba mu mot sëkk ñaari néeg la benn panterie ak douche bu yaatu ak waañ toilette intérieure véranda Karim moo ko lu ñu bëgg bu fekkee Karim dafa am ay toj toj yu mu def Sénégal lijjanti leen ko foofu waaye kër gi këru Karim Wade la ñun Karim mënuñu fay lu ñu amul waaye loi bi ko wax article 2475 législation des domiciles appartient à monsieur Karim Wade

Karim donn ko kar moo ko moom oui Karim moo ko moom Karim donn ko kar gi ko leew doomu Karim moo ko moom Cheikh ci décompte boobu ñu ngi lay gërëm di la sant ci coordination bu rafet boobu di gërëm tamit Thierno Mamadou Adama Gueye xalif bu Cerno Adama Gaye nekk ca ñànk idi ak soxnam yëpp ñu ngi koy ziare di am mbégte contentement bu mag ci Serigne Gora Seye président mouvement les serviteurs de l'islam bi nga xam ne nag barke démb la jógee Màkka ngi koy ziare bu baax ak mbooleem taalibeem ak koo xam ne yaa ngi ci mouvement boobu les serviteurs de l'islam ziar nañ ko bu baax Serigne Gora Seye di am mbégte contentement ci Bambi Silage euh, yaayu Chérif nekk ca Paris ak bébé Khadija ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu tamit suñu benn soppe Serigne Saliou Mbacke sama xarit la ibne Serigne Khadim Mbacke ibne Serigne Ibrahima Mbacke bu Khadim ngi koy sant di ko gërëm actuellement mu ngi en tournée étape bi mu toll nag ngi ca Barcelone bu fa jógee dana ca France ca Suède Serigne Saliou Mbacké sama xarit maa ngi koy ñaanal fan bu gën a wér gu yaram kaaw Seera Chéri nee kaaw ñu koy gërëm waaye tamit di am mbégte contentement ci Serigne Amsatou Mbacké fils de Serigne Soubérou Mbacké xaritu Mohamed Victor nuyu nañ ko gërëm ko bu baax di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa gi seetaan émission Kouthia Show madame Diagne Kiné waa kër yëpp ñu ngi koy nuyu foofu ci am mbégte contentement ci Thierno ak suñu xarit Bokar Alpha Kande nekk ca Kolda di nuyu tamit bu baax a baax suñu yaay maman Aïda Diong moom ñuy seetaan ci émission Kouthia Show di ko ñaanal fan bu guddub tamit ak wér gu yaram am nañu ay xibaar yu leer na daal émission bi du ko raté moo taxit ñu ngi koy gërëm di ko sant tamit wala boo jege moo ñu ko wax ne wax dëgg yàlla bokk na lu koy soulager moom Aïda Diong émission Kouthia Show moo taxit ñu koy tàllal loxo di ko nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér lépp loo xam ne wax dëgg yàlla lu koy bégal la màggal sëñ Abdou Salam Mbacké le 1er octobre à Touba coordonnateur bi di Serigne Omar Ngom sama wëlër sama xarit waa kër ga yëpp ñoom Serigne Saliou Ngom Serigne Mame Thierno Ngom Serigne Seyer Ngom Serigne Fallou Ngom ak dëkk ba waa Ndiakane Bambey ñu ngi koy préparé foofu la nga xam ne mooy ca Touba le premier octobre lay doon yàlla yàlla may ñu ci ak jàppale nag gaam yi nga xam ne moom ngeen gis nii ci bëgg a xees te dafa doo oqatu doo xasanu doo nekk ba guddi di di jël sa sa bopp di ko sa sa sa mbagg yi di ko raay ci ci ci ay miir da ngay ñëw fii kër aram jàppale ndax dëkk bi léegi koo gëjoon gis léegi day weex tàll man am na ñoo xam ne dama leen gisoon ñu ñuul kukk mais da gis ñu weex après da leen gisaat ñu ñuulaat kukk nit ñu gën a ñuulee woon mais bii moom boo xasee ba ñuul xees dootoo ñuulati te day maintenir sa teint doo aqu doo xasan doo am picc ay professeur yoo xam ne ñoo jóge ci université ñoo la koy jox tegtal la ko ak shampoing bi kër aram jàppale na moom tax nañ ba léegi benn booy semétéwul ñëpp a ngi ñaw ndax xëy sol yére ak xëy lek mooy ñaari métier yoo xam ne ku koy def doone aw ma client xëy jaay lekk ak xëy jaay yére ndax saa ñu xëyee suñu yére di xotteeku ñuy fóot di passé di utaat yéen yére ku ñuy seeti nag mooy pas Sonko moom coolu mag moo am dimanche passé ca ca ca ñaari clan clan soose yi ku nekk di xeex ñu naan suñu kankuraa waroon génn ñu naan seen kankuraa ñoo waroon génn te nag askanu soose askan la boo xam ne benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar du ñu bàyyi nag ba ay kankuraa ñëw ñu bëgg di def loolu préfet ba nga xam ne mooy monsieur Ndaw aay na ko woon ñu ñaan njekk bañ defar ko waaye na soose yëpp àndaat bokk ndey bokk bàyyi xam ne ne aada ak cosaan kenn du ko xëccoo te kankurang bu génnee jàmm moo tax muy génn ay taxul muy génn la xew mbuur nag onkat nga xam ne wax dëgg yàlla fan yi mooy coow depuis dimanche yàlla na ci yàlla def jàmm kii di ñëw nii nag mooy pas Sonko bokkul ak nijaayu Sonko impôt et domaine kii beneen Sonko bi la ñu seeti ko olofam sax leeru waaw mooy pas Sonko ŋà guro bi dafa tukki eh. xam nga boo waxee soose mm-hmm. waa nga cosaan soose bu amee guro uh-huh. soose bu mag bu amee guro mu na nax moom kon ñi santa Jóob ak Njaay uh-huh. njoobeen boo joxee moom mburu uh-huh. ee eh, mu noppi ah. su mere ah. danga jël mburu rek nga def ko ci bakkan mu noppi soose tamit joolaa bu xulee ak soose joolaa bëgg soose noppi mu jël guro def ko ci bakkanu soose rek soose yi kontaan man dama mer ndax mhm. yoo kankuran mhm. aada ah, a cosaan la bu génne mhm. yoo yo rek jàmm moo walla am mbuu géej benn dëkk la kenn mënu ko xañaa kankuran bu génnee pour ñëpp am jàmm kon bu kankuran génnee imam wa basa moo génn ñeene seen bas moo génn loolu jaww histoire bi joolaa yépp bokku ndey bokku bay joolaa du doo joolaa seeree du doo seeree olof moo doo olof olof dafa doo olof soose walu doo soose ku ka soose mu doo soose loolu bañ mu am ma mbee golo bii maa jënd pour jox suma mbokku soose ji ngaddu golo bii ma jox njabootu imam ak njabootu bee nga xam ne ñoo jaxase kankula génn coo am tele waru tu tu tu rude ñankaale boone <laughs> ñabali mm. ñabali brankaale ñabali mm. isuko tooma ni suloka tooma iyo ala mana tiara kerala barkale kerala sonkole ñana farafe ñe ñole ka bunkiling seju kundane kale baram punke ñukuli ñabali ñoole kankura ñaabali ko ñaabali suncoole saaxo bankeela muceng na kankin ding dong kankura ñoole isuwaare kama ñini alamana tiyaara kerla barka ñabali ñabali sonkoole xibaare jantaale kookole inaburuno e naburuso naɓele kini ŋankale sobole binjona seju kambale kinka sonko nuna ka fati jangale kinkonan alabana ke ara kerala barkale sonko yo ŋaɓale sankuranga faati sonko bojang saane jaame semuna kante malanka dingo dinga danga kale kasinkale anone kaboni kaboni mali bontole alamanatiare kela tole mu tolemu iyo Nyabali. Nyabali konge. Ala mana tiara. dara la nongo ñanga ñunkule kawol kati seytane cabalin cabalanga jara kawo ni kati rungi kotali weni man tole ka ñungulane ñabali sañ-sañ nga dinga ma ala mana na dinga ma sañ-sañ nga nga saña nga na ma iyo iyo màkk di ko nuyu Pape Ka responsable APR ca Malika de la part de Modou Gueye GFM ñu ngi koy nuyu Kër Massar waaye sama soppe la ñu am bu mag ci moom El Pël euh, le dëkk grand promoteur immobilier ñu waaye tamit di nuyu maire euh, Mame Fama Thiandoum ca Guédiawaye sant nag amo sis waaye di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi déglu émission Kouthia Show di nuyu tamit Marème Fall nekk foofu ca euh, Marème Fall nekk ca jëppal di ko nuyu bu baax booru fi nga xam ne nag moom mooy ba passé di ko ñaanal fan bu juddu la tudd nag waaye nag borom euh, euh, lakk bu neex bi di ko ñaanal fan bu juddu ak wér gu yaram moom Marème Fall yàlla defal ko jàmm ak wér gu yaram mbootaay nopp sa jëkkër ñu ngi leen di nuyu ñoom Binta Diop ñoom Maguette Mbaye chéri Bas am satu chéri euh, Guèye ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement di leen nuyu ñoom ñi nga xam ne mooy mbootaay nopp sa jëkkër gërëm nañ leen sant leen bu baax a baax a baax waaye tamit di dalaw di njukkal bu baax encore une fois waa kër sëñ Euh, Abdou euh, Salam Ngom yi nga xam ne nag le premier octobre ca Touba nañuy def seen màggal bu mag boobu nga xam ne mooy màggalu euh, Abdou Sëriñ Abdou Salam Ngom muy am ca Touba coordonnateur bi Sëriñ Omar Ngom moo ngi cey woo nag bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci biir ak ci bitim réew ñu teew ci ndax bés boobu bés bu am solo la ndax seen waajur waaliw kaamil la woon boo xam ne wax dëgg yàlla ci yoonu murid ñëpp xam nañ a baax a baax ñu ko a wér dina nuyu yëpp ñoom Sëriñ Saliou Ngom Sëriñ Maam Ngom ak Fàllu Ngom ñoom ñëpp ak waa dëkk ba Njakaan Bambey Daaru Salaam mbokk yi ñu ànd ak ba tey Papa du euh, Papa Samba Thiam ci réalisation bi Kër Aram jàppale ci produit yëpp ñoom ñoo ñuy gunge ñu ci am mbégte contentement di gërëm ñëpp nag di nuyuwaat une fois encore Serigne Gora Seye président mouvement du Sénégal euh, le serviteur de l'islam kon nag dañuy dem seeti maam mbay ñaam yi nga xam ne moo lakk daay ji te yaakaar naa ne ku lakk daay ji Moustapha Niass a ko waaye léegi way ba jógee na te Moustapha Niass ma nga ca maam mbay ñaam ku lakk daay ji

jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu bon sama wax du gudd du gàtt euh, président Macky Sall ñu mel ne man la bëgg te ma leen di xamal dara ngeen xam ko gis nga il faut ñu décharger président Macky Sall li koy décharger mooy ñun ñi nga xam ne ñun la fal tey ñu toog di ko liggéeyal ñoo ko mën a décharger ci li nga xam ne dañ ko ko teg ci kaw boppam Aliou Sall rakku président Macky Sall laay waxal bi fi Ablaye Wade nekkee. ba ba mu fiy jóge ba 2012 mi ngi doon liggéey ak Ablaye Wade ma nga woon ca ambassade Chine di liggéey ak Ablaye Wade ba ñu demee ba premier tour moog Ablaye Wade ñoo ànd ba ñu demee ba deuxième tour mu xam ne nag affaire yi commencé na jaxaso ci la doon ñoo tafu dama kon moom moo mën a leeral magam na sigil magam na setal magam parce que am na loo xam ne tamit loo xam-xam ma samba ma samba gën laa xam boppam Aliou Sall tu es responsable yaa war a génn joxe des détails A par A B par B C par C D par D ba Y ba Z. parce que la président de la république mënoo fu nekk mu taxaw fa dafa joxe ay données yu leer. bi muy metti dëgg. ñuy nekk aéroport di ànd ak président Macky Sall ñuy dàq boobu yaa ngi ànd ak président Macky Ablaye Wade nekk ca Chine kon tey mbir mi bu jaxasoo yaa war a génn leeral mbir mi. li may wax nag dama xam ne dara du ma ci fekk parce que waxuma ay wax yoo xam ne waxu sos la biñ koy fal fii président des maires man dama taxaw ne du ma ci ànd parce que dama ne liñ ko defal doy na fexe nañ ba mu nekk maire Guédiawaye am na loo xam ne tamit bu la ko président sax bëgg la loo xam ne bu la ko askan wi bëgg la yaa ko war a bañ dama ne yaa ngi gêner le président de la république ci déroulement bi nga xam ne mu lay def Aliou Sall dama bëgg nga génn wax ak askan bi leeral parce que grand frère dafa am bët mu lay xoolee ah te bët moomu lay xoolee yaa mën a tax moom mu siggi mën a xool askanu Sénégal ndax doo ko yàqal mandam bi di ñëw ah. mais yow Alioune Sall lan la yow ba muy metti dëgg ñuy toog di ñafe di xeex suñu bopp yaa ngi ànd ak le président Ablaye Wade yu wow yaa ngi woon Sine ah. dama ne ñaar ñoo mën a am ah. soit da ngay démissionner ci mairie bi démissionné ci parti bi dem nekk koo xam ne da ngay yoon da lay topp nga leeral li nga leera ba pare nit ñi mën a am jàmm ñu liggéey pour Sénégal mën a émerger sama wax nag kenn mënu koo modifier te li ma wax nii su neexuloon président de la république wax ju am ñaari fan bi ma koy wax léegi mo quatre jours dara fekk ma ci yebaluñ ma yoon yónnuñ ma dama fekkee gis moo tam wax ko dama ne kon ku daay su lakkee maa ko taal te maa lakk daay ji man mbay ñang maa lakk ne c'est vrai na ko leeral mais nay leer mais dafa war a leer mais mais na ko leeral mais Aliou na leer mais dafa war a leer mais mais na ko leeral mais non mais mais c'est vrai mais na ko leeral mais lii mooy lan mais na ko leeral. waaye mais mais mais mais mais na leer waay waay na leer. contentement di euh, ñu ngi ci actuellement Kër Aram jàppale euh, di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan Basirou Sow euh, promotion di ko nuyu bu baax Basirou Sow promotion Bas Masson Ousmane Diallo Samba Fall jardinier Issa Dieye Bayou Fatou Mbaye tous à Richard Toll ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax waaye di am mbégte contentement ci képp koo xam ne mbokk ki nag ki nekkoon si bi di Papa Samba Thiam Yaawo Gervais yor ñaari caméra large ak serré ki nga xam n nag mooy Papa Doudou Thiam production moom ngi moo nekk ci diggante lépp lu ñuy soxla ci plateau bi waaye di gërëm tamit bu baax euh, euh, toog bi nga xam ne mooy yor son bi di am mbégte contentement ci euh, Fatima Evans bi nga xam ne nag coordination bi delloo nañ ko ko parce que tamit nañu waxante dëgg Pape Pape Cheikh dama seetlu benn mbir bu muy def maanaam day feeñ ba nga gis ko mu yoxosu actuellement dégg naa ma ngay coordonné journal ba bu ci paree nag salaire la jëm di coordonné comme nag comme gis nga. gis nga euh, euh, euh, Pape Cheikh coordination bi ni ñu koy rafetlu bu baax li ñu ko defee nii baax na Fatima Evans bi na dellu place am ci faute mi yaa ngi dégg mooy sa faute kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant c'est normal sax Pape c'est bu la neexee nga coordonné journal bi yaa tey léegi ñu ngi koy gërëm bu baax ci coordination bi moom Pape Cheikh Diallo ci coordination bi nga xam ne daf na ko ci émission Kouthia Show di gërëm bu baax ki képp koo xam ne yaa ngi soo liggéey ñu seet si nag Karim Wade victoire bi mu am. ca France ma ngi ko fekk ca Qatar nan la koy fetee Pape Doudou euh, Papa euh, Samba Thiam baayu euh, bébé Yacine ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moo njaboot ak yëpp ak képp koo xam ne ñëwoon nga ci bësam boobu ne na gërëm na la sant la léegi ñu dem seeti Qatar la fa xew ca biir palais ba allo Pépé oui d'accord Pépé oui su ma nijaay ma dikki wax ne ma ko mais na ma ci kanam tuuti dinañ ma jox résultat yi waaye ñu ngi procès bi mu ngi daw maa ngi Qatar ok papa ok ok Oumou Kalsoum Oumi get up you see ti ti ti Jarel Kingston Elston Mouchoir Clicks Why isn't it alcohol? وين الكاميرا؟ وين عشان هنا الو وده ما نكاك سمك اجنبي moom la ma buur bi booleel lu ma soxla moom ma koy lijjantil. yes yes yes may may may fase is it fase. oui. oui si may fase. <laughs> ah là là là là là. papa moom déggul français moom la ma buur bi boole lu ma soxla moo koy lijjanti kii papa si keneen. وزين لا لا لا زين ولا تي لا تي تي تي تي سي تي تي téléphone téléphone téléphone wëttéel wëttéel ay la Pépé projet ngi daw maa ngi toog résultat Pépé téléphone té go ok hmm. chose té té chose chose dindi diyoruz. Eh, dindi, dindi, dindi. Öyle Ne hacmi ya? Ne hacmi? Evet. Neyse diyoruz. Telefon. Telefon. Telefon. وسلم لقطي لقطي لازم معايا الا لا لقطي الا لقطي الا الا لقطي وسلم جوز يتم جوز get juice get juice okay okay get juice okay get juice. tea eh, tea. well come back tea. waaye sëñ Léonor kay lan tey tea. eh tey tey tey. téléphone téléphone comme Sénégal téléphone ii dégg nga kay seen gàttal يلا الله عند الله يا لاي هيدا خالد الزرق قال لي يلا الزرق لا لا لا لا لا والدنيا ان الله صدق صدق Telefon papa, telefon papa. Ah, ah. Ti, ti, ti. Amarilla. Ti. Ha, ha. Han sırdı dedi, damadı sağ Get down, get. Get down. Get up, get up, get up now, yes. téléphone allo papa gagné naa gagné naa procès bi allah allah wasale wasale allah wasale my my house challenge in my house jale fetel esa va va va va هلا أنا إلى دخول ملك إله هلا هلا هلا إلى دخول ملك إله هلا ميرسي ميرسي أنا أنا lokati lokati lokati lokati lokati guutu mbay guutu mbay